moom même bu dul dëgg sax mais day yàq. d'accord te nekk africain dafa mën a. créer ay situation de psychose. États-Unis mi nga xamante ni àgg nañ foofu sax Donald Trump. élection yi passé xaw na ci. indi problème dafa contesté vote électronique bi dafa contesté carrément. Hmm. mais malgré tout le système électoral américain est assez fiable. Ah, malgré contestation. cour suprême yaa ah, mais nañ fa non nañ mën nañ fa yegg nañ fexe ba fiable rek. gis nga dëkk bi buñ ko tegee ci yoon rek. ça dépend ci l'évolution des mentalités mooy wax ji quoi. voilà Thioune euh, euh, nga yeggali ci euh, lu jëm ci bu Macky Sall. bi ñu évoqué mais <laughs> qui mu voté apparemment. à moins qu'il vienne au Sénégal. c'est la seule condition. waaw rek. sinon la deuxième condition. Hmm. ñu jël Fatick yóbbu ko. Fatick après li mu ñaareelu condition. te matériellement c'est impossible. waaw comme ça léegi mën ngeen dagg loolu ngeen def lu leen neex. waaw c'est-à-dire du voté du léegi. Euh, est-ce que Macky xalaatul woon ñëw moom. ba muy ba muy tàmbalee amul woon projet pour ñëw def ci élection. Hmm, waaw c'est pas nee na c'est pas l'ordre du jour donc nee ñëwagul. Hmm. loolu sujet boobu war nañu ko dépasser quand vraiment vote Macky Sall woon c'est réglé. beneen bi mooy Ismaïla Madior Fall dafa dafa dafa dafa jël li ko arrangé rek. mu daal di ko expliquer mais moom. il y a pas une irresponsabilité présidentielle éternelle amul. amul absolu d'ailleurs bu la neexee. absolu mooy mm. que mm. ne yow loo def rek ba kii na kenn du la topp ba nga faat loolu amul fenn ça n'existe pas au Sénégal. li am mooy te loolu wax na ko moom dafa dafay dem ci article 101 de la constitution moom kese moo ko tudd moom mooy wax li ñu tuddee la responsabilité présidentielle te loolu gëm naa président Diomaye ak nguuram war nañu créer loi bi régir le statut du président de la république pour que ñu xam lan mooy réellement les responsabilités du président de la maanaam les responsabilités pénales la responsabilité pénale du président dañ ko war a xam mhm. par exemple lu loi bi wax ne le président n'est responsable devant de ses actes quand qu'en cas de trahison mhm. maanaam coow bëri bëri yëpp benn kese benn kese même tey bu ñu jàppee ne sax def na lu yoon tere bu dee loolu tuddul haute trahison mënoo toog si loolu la mooy loolu loolu mu loolu loolu irresponsabilité la mais irresponsabilité dafa am limite cest à que mënul nekk absolu quand elle ne peut pas être absolue donc dafa am fu mu yem fu mu yem mooy lorsque l'infraction est assimilable à une haute trahison le président il est peut être poursuivi léegi nag la question mun na dem par exemple moom si bu waxoon le Sénégal ci arsenal judiciaire am il y a pas une définition juridique de la haute trahison là c'est là c'est vrai si code pénal il y a pas une hmm. peine prévue pour ce ce crime de haute trahison ça c'est vrai Maintenant, euh, aussi, dire que ne peut pas être pour, pour, pour, pour faire, mais il revient au procureur de la République ki war a toppaate de dire que de qualifier les faits et également mu joxe une définition de la haute trahison si elle n'existe pas léegi nag loolu tekkiwul na mënuñ la topp léegi nag mën na wax ne mënoo ko topp ci lu ne waaye nag mun na mun nga ko topp ci lu nekk bu fekkente lu nekk noonu ki pour ki toppaate jàpp na ne lii am na définition haute trahison léegi def problème foofu lay nekkee. d' accord léegi bu ñu gisee euh, Mimi Touré di ko rappelé euh, kaaw Hissène Habré mais également di wax ne bi muy wax loolu xanaa dafa fàtte haute cour de justice bu Sénégal ak cour pénale internationale. léegi léegi xam nga haute cour pénale internationale te gëm naa dina tontu Sénégal état wu Sénégal. te Sénégal léegi jamono ji amul lenn lu koy gàllankoor pour mu porter plainte te loolu yëpp jaruñu fay dem parce que CPI daf ne man damay intervenir si juridiction nationale bi fi mbir mi amee moom dafa taxaw seetaan mais nii yoram nekku ci su boobaa man damay jóg ma agir ma activer sama machine judiciaire mais fii Sénégal tollooguñ fa nguur gi état parce que dañ ne pour nga képpee ñetti ñetti saisine moom mën a am soit nga état bi état parti bi porte euh, saisir ko wala Nations Unies wala procureur bi ci boppam parquet bi état wu Sénégal moom jarutul ñu yegg foofu noonu parce que moom jàpp bu jàppee ne parce que il faut loi d'amnistie bi jóge fi bu fi jógee bu fekkente ne ñoom danoo taxaw di seetaan su boobaa seen pays bu jàppee ne fee yooyu bokk na ci moom lu mu am compétence bu àtte ko mën na dugg ci mbir yooyu. ba mm-hmm. pare toppaat topp ñi nga xam ne ñoom ñooy lay supposé ñu jàpp ne ñoo def mbir yooyu mais ñun justice Sénégal tolluwuñ fu ñuy waxee ne. bëgg na wala bëggul wala bañ na wala bañ man jàpp naa ne bu ñu bu am ne si bi mun nañ xool feebar nga xam ne moo fi am te à la limite c'est des parce que nit ki ko dóor bal nga tuddee ko leneen. Ah. nit ki mënoo ko mënoo ko di ko daax muy daw nga dóor ko bal mu daaw. nga gis ci ginnaaw ay bal ñoo ci ginnaaw wala mu tudd c'est pas un délit c'est wala mu yor drapeau. waaw ça c'est un crime nga leen di compter. mu bu doon benn sañu ne a ah, dañoo jum tey. mais dangay ngay un deux ba quatre-vingts mais imagine nga naaw la fi quatre-vingts néew nga xool mais est-ce léegi nag loolu Sénégal la am ay des jeunes yoo dañuy ndékki bu suur wala ñu dem añ ñii di jëm jënd mburu pour reer ñu dem dóor leen bal man xale bu jour man ñooñu mënuma leen supporter sëñ bi soxna si mm-hmm. mënoo comprendre waa ji dem Colobane war a wàcc pas heure boobu muy daw parce que dafa bëgg xalaat na dëkk bi day tàkk mm-hmm. muy profité tëj buntam place muy daw ci daw boobu di traversé tali bi ñu dóor ko bal mu de kooku da koy bàyyi noonu kooku manifesté wul la kooku da doon tëb parce que même bu doon manifesté sax waaw léegi mais ndar yooyu léegi nag loolu nga war ko leeral ngay ut ay kan moo nekkul responsable xam nga d'accord personne non responsable léegi justice dina déterminer qui sont les responsables parce que bal mu balu fetel moom kenn mësu gis muy naaw rek mm-hmm. da ku koy jóge du dóor te bal fetal ki koy dóor amul fit benn yoon di tiire lu dul dañ koo jox ordre yaa ngi dégg mm-hmm. ku fekkee du ñu tuddee manifestation xam nga nu muy demee du n'importe quel kii kii def kii def euh, ordre bi kuy def la ñu tuddee service d'ordre ñun yëpp a yore fetal de mm-hmm. dafa am ñu si yore te bu ñuy yore xam nañ jiw ak diw moo koy yore ñuy si yore ay grenade la ñuy yore ñii ay lance grenade lañuy yore mm-hmm. donc bu fekkente ne ñu bëgg mu leer bu nañ xam mu leer et je pense que dem loi si moom dafa war a tëb donc bu ñu amee majorité man loolu rek laa sama nekk si leneen ay ay leneen xaw ma loi sur l'homosexualité ay c'est pas mon souci mon souci c'est quoi tëbal leen ab loi loi bi nga xamante ne moom fi indi impunité te Ismaïla Madior Fall quand moi je l'entends parler c'est comme si dafay def l'apologie l'apologie de l'impunité comme si day daganal nit def toj toj rey am fi comme si dafay koy daganal comme si léegi nit am nga permis rey parce que dire que waaw loolu nañ nañ ut benn commission xaw ma lan waxtaanee ko nañ ko waxtaanee mais waxtaan bu amul dëgg fu muy amee man man de ku ma wax baal ma te xaw ma lu ma lay baal du ma la baal hmm. su ma ko xamee nag mun naa la baal hmm. mais ñëw rek cuun baal ma lan laa la def wax ma lan laa la def amaana li ma def su dee wax nga ma ko may du ma ko baal léegi yooyu sax c'est pas c'est pas comptable léegi waaw ah, non amul de léegi léegi nag Macky Sall moom d'accord mënoo ko topp moom lu dul au trahison léegi haute trahison kii Tapha Dem mën na ko moom moo naan lii c'est la haute trahison. léegi haute léegi rey nit nga bu dee xam am nga ci wàll saa. bu dee xale bii bu waxee bu leen ko rey wala arrêté leen ñëppay arrêté saa bu seetaan nañu rey xale boobu saa am na ci responsabilité. Hmm. léegi ku lay kiy qualifié mën na jàpp nag sa responsabilité boobu noonu mën naa ko tuddee haute trahison ça dépend. waaw kiy qualifié. Hmm. Mm-hmm. mais nag en réalité il n'y a pas une définition juridique de la haute trahison dans aucun arsenal juridique du Sénégal amul. Sabula sorte yi ñuy def est-ce que nekkuñu euh, un mel ni kuy avouer seen ay responsabilité waaw mais lool la parce que xam nañu ne ñii ak lu mën a am mooy day tëb te bu tëbee